expecté ko si ñun incha allahu rabbi tey tamit dina leen indi another important topic of discussion ne xam ne boobu la ñu waxtaanee si plateforme bi tey waa balaa ñoo dugg si biir programme bi ma bàyyi suma guest bi oustaz Souleymane Diallo mu nuyu wante ak askan bi yow oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Mariama jërëjëf beneen yoon ñu ñëwaat fii di toogaat ci Eco TV di amaat yenn nga xam ne yaataar rek la ak waxtaan ci suñ jamono moo ñu tax a toog fii nii di nuyu waa Eco TV yëpp di nuyu suñ yaay ak papay waajur yi di leen di ñaanal jàmm ak tawfiix ak barke bu baax a baax a baax ñoom nga xam ne saa yu nekk lañu suñ suñ gannaaw di ñu ñaanal ngir barke bi gën a ak ñu gën a doxal nga xam ne suñ borom loolu ñu sant ah di nuyu waa Eco TV bu baax a baax a baax di leen di sant di leen di gërëm si chance bu ñu may nii ñëw toog fi nii di waxtaan si lu nga xam ne lu am solo la lu am maanaa la lu jëm kanam la si suñ diine ji nga xam ne saa yuñ toogee waxtaan rek ñun waxkat yi daf ñuy am lu ñu fàttali si biir fàttaliku boobu noonu nag nga xam ne ñun saa suñ suñ bopp si la ñuy doxee ñun tam ñu gis yoon ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk ak naka la ñuy jëflantee nit ñi waaw macha allah ah jërëjëf ah yaa oustaz ah, di niñ ko miin di ko defee rek di gërëm suñu borom di ko sant bu baax a baax ah, moo ñu may fan bi may ñu kattan bi amay ah, ñu béru bu ñu ñoo toogaat fii si télé bi di mën a waxtaan ak suñu bokki jullit yi di julli si yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suma ñaari waajur yi suma waajur bu góor bu dellu si boromam di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana suufu sedd si kawam te jigal ko bàkkaaram yi ak képp jullit bu dellu si seen borom yenn la yàlla xare àjjana ah, suma waajur bu jigéen bi di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudda yàlla may ko wér gu yaram yàlla may ko mujjun bu rafet yàlla sutura ko aar ko ak képp jul képp mbooloo waajur yàlla jàppale leen si yóbbu njaboot ma suma jëkkër ah, di kontaan si moom saa yu nekk di ko gërëm di ko sant parce que moom mooy opportunité bi pour ma mun a ñëw toog si télé bi di mun a waxtaan ak suma mbokki jullit yi kon duma ko fàtte si gannaaw di ñaan yàlla mu may ko fan bu gudda mu may ko wér gu yaram yàlla may ko kattan bu mu liggéeyee yàlla may ko jun bu rafet yàlla jàppale ko si yóbbu njaboot yi yàlla sutura ko yàlla aar ko yàlla may ko kattan bu mu saa yu nekk di kontaan si moom di ñaan yàlla yàlla may ko fan bu guddax yàlla may ko wér gu defee liggéeyam bi parce que liggéey ñoo def ni dafa am solo torop ah, ah, a si society bi ñu ngi niit yoo xam ne dañuy jàppale su diine islam bi kon di waa usna sa jërëjëf nan la yàlla may fan bu guddax yàlla sutura yàlla aar tam yàlla aar njaboot yi yëpp incha allahu rabbi ah, di kontaan si moom bu baax a baax saa yu nekk asuma toogee awma topic bu ma indi sax moom dina ma jox topic yoo xam ne dafa am solo torop te mu indi this important topic of discussion mooy yereeni islam in the society mu nekk loo xam ne mu am solo torop parce que society bi we have to uh, uh, live according to our islam waa léegi ñu ngi gis ne we are living islam away and then we are living mu nekk loo xam ne it's bad for us and bad for the society kon tey moom incha allahu rabbi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 di borom jikko ju rafet ju baax ji nga xam ne te du ñuy waxtaan yi nii yëpp dar suñu war a waxtaan yi sax am na ñu ci ay tegtal war nañu si ay yoon yu nga xam ne jullit bi foofu lay jaar yàlla moom yaakaar naa ne yàlla moom dafa jël lépp rek jox ko yonent bi sallallahu alayhi mu nga xam ne moom moo ñu woon yoon ak lépp loo xam ne war nañ koo def <laughs> ci koo àdduna fii ñu bala ñuy dem tasee suñu borom ak naka lañ war a dundee si suñu àdduna bi nii tey topic bi tey bu nar a waxtaanee moo nekk ak tarbiyatul fil islam tarbiyatul islam fil mujtama tarbiya kàddu boobu moom baatu arab la suñ ko waxee mën nañ koo translate ci english education moom mooy millennium education léegi si biir education boobu noonu tarbiya boobu noonu lan la miin ndaxte soo demee exemple soo demee si collège bi. Mhm. da ngay dégg school of education. school of nursing school of teaching mathematics yooyu noonu fa. waaye bi ne school of education bi ci tarbiya la mooy wax. Mhm. tarbiya mooy lan yar yar suñ ko waxee dafa yaatu fenn fu nekk yar mu fa. Mhm. ñu ne tarbiya moo nekk tanmiyatul islam euh, tanmiyatul insaan min jaanibil xulqi wal ruuxi wal aqli moo nekk lan ñu defar nit ki si nu mu war a nitee jikkoom naka la war a mel naka la war a yaru ak ruux bi si boppam naka la war a mel loolu moo nekk tarbiya léegi suñ demee si yooyu noonu yëpp benn bu nekk nit ki am na fa rôle bu nga xam ne moom la fa war a doon ndaxte tarbiya si boppam dafa yaatu nit kii fu ñu ko commencé di ko yare moo nekk keroog bu ko suñu yàlla defee eh, eh, suñu borom defee si moom la ruux ko si suñu maam aadama nga ne moom mooy jiite ñëpp. Mm-hmm. yàlla di defar ñëpp moom la njëkkaa defar waaye bala nga koo defar defar na ko rek bàyyi ko noonu taxul mu def si moom la ruux bu mu defee si moom ruux mu def lépp si moom mu wàcc ko si kaw àdduna bi fii. bu ko wacce ci aduna bi nañ ñu won mu won ko ay tektal yu nga xamni fofu foofu la war jaar ñu doomi aadama yi ndaxte ñun bal ñuy ñew fekk am na ñuy jitu won <laughs> waaye ñu ñuy jiitu woon si lan lañ nekkon ah. si lan lañ yar won ak si lan lañ dundee woon moo gën a su waxtaan bi bu ñu toggé ci sun society bi <laughs> ñu gis lo xam yaatu euh, euh, doxut <laughs> wala lo xam mu doon dox ñi bu ko manki war nañu mëna togaat sétatal ñu xam mistake yi noonu fan la ñuy jaar ba defar ndaxte suñu borom bu mu waxee ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun boobu moom la lépp jeex ndaxte moto yu rafetee oto yu rafetee bi ñuy wane nii yépp mu ne taxul ma wàccee la si ko àdduna bi si la bokk waaye taxul ma wàccee la si ko àdduna bi <laughs> ngir ngeen jàmm waaye bala ngeen maa jàmm si boppam ngeen may xam <laughs> waaye bala ngeen may xam nag faaw nga am yoon yoo xam ne foofu ngeen war a jaar mo nek tarbiya bi ci mo ana yan teggini nga xamne be nga wara jaar exemple kuy out scholarship mhm. il faut nga am details yoo am na nga wara mëna am jaar mhm. ba nga mëna am sa scholarship mhm. ñu la fayal nañ la nga loppi nga dem kon tarbi tarbiya tamit non la suñu sété ci qur'an karim muy wax ne inna hadi alquran yahdi lillati hiya aqwam dégg nga quran bi dafay tegteel wala dafay jubal ñi nga xam ne illati ak aqwam moo gën a lan am doole am na ñu nga xam ne yàllaa jël quran def leen su def ko si ñoom mm. bu mu defee si ñoom quran ba pare mu ne lan nag quran bi jël leen ko ngeen jubal si nit ñi jël leen ko ngeen jàngal si nit ñi mm-hmm. jël leen ko ngeen wan si nit ñi ñoo xam ne borom ma lañ borom xam-xam lañ mm-hmm. fu ñu toog nit ñi naw leen ku leen seen Euh, euh, euh, topp leen. waaw ñu admire mm. la. waaw ndax teral la dafa am loo xam ne loolu la yàlla def si ñoom dégg mm-hmm. ba tey ñu si procédure tarbiya bu nga xam ne moom lañ war a jaar ndaxte tey gis nañ lu bëri mu ci si société bi lu nga xam ne mu ngee laak exemple respect naka nga war a jëflante nit ñi mm-hmm. dégg nga mbiri jàng beeg. Mhm. mbiri solin beeg. ak nit ki si biir këram naka la war a mel. Mhm. ndaxte loolu yëpp mu ngi laag si gannaaw. Mhm. soo laagnes boobu noonu suñ ko seetaanee. mbaa ku nekk naan euh, am na ñu ko de waatee man your business and save your life boobu noonu. suñ ko toppee lu bëri du dox. day indi loraange yu bëri si day indi loraange. ndaxte am na loo xam ne. yonente bi mu wax na ko uh, si si xadisam bi min xusnal islaami mar yi tarkuhu maa mala yaanihi waaye di ko seetaanee si lu nga xam ne lu bon na kenn ku nekk am na la mooy ndamoo si diinam lu nga xam ne moo ko yóbbu si boromam ku ko noonu dañ koy gën a ñaax mu continuer waaye ku nga xam ne daf koy delloo waatoon daf koy delloo gannaaw mm. daf koy sóobloo lépp loo xam ne daaw dafa war a jaar suñu diggante borom bam ba mu si jot suñ gisee ne kooku noonu lii mu ngi koy mën a soriloo war nañu mën a toogaat kooku noonu waxtaan wala ñuy def général waxtaan boo xam ne dina ko laal waaye duñ ko wax daay rek xam mm-hmm. nga nit bu ngaa toog waxtaan ak moom mm-hmm. gis nga ay action yu mooy def waaye doo ko ne yaa ngi def naa mati naa da ngay wiiree wax mm-hmm. bu yàggee bu nekkee borom xel la dina nangu xam yow fu nga jëm fan la ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay saxaabam si lu mu leen yar su lu mu leen waxtaan mhm. su lu mu leen defal yëpp moo nekk njub baax tabe lenn lu nekk moom sallallahu alayhi wa toog na ko ak saxaaba bi te dafa ñu toog ñu nekk mbooloo muy commencé di wax ñu koy laaj waaye yonent bi nangam lu si yàlla wax mu ne leen lii ak lii ak lii si sometimes si bir tank tank bu ñu yalla wacce ay wax yoo xam mhm. daf leen di won yoon si bir loolu noonu nag ñooñu ñi nga xamne ñu nit di wax loolu ñu tam dañuy jóg dem jangale ñeneen legi si bir jangal jangal boobu noonu mhm. si la gisee lak yoon ba naka la defé nit ki ak mom ak boromam mu ratax ba nga xamne sa yu ne yalla rek yalla nako nam <laughs> su duggee si biir mbooloo mi mbooloo kontaan sopp ko ngir lan yar bu xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaarale woon ak saxaaba ndaxte daf si am si ñoo xam ne dañuy xëy sa suba teel sax yàkkamte ak si buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog di ko xaar ko mu génn am na xam ne dañuy toog foofu noonu toog foofu noonu xaaju guddi ñu door a dem tëdd seen kër waaye su ñuy jógee foofu noonu rek di ko nam ngir lan yoon bu leer bu mooy wan nit ñi yoon bu baax bu may teg nit ñi nga xam ne kenn ku nekk soo fa jaaree doo am jafe-jafe sa diggante sa borom. fii la jaar ak ñoom. du leen ŋàññ du leen xas. du leen saaga du leen wax lépp loo xam ne ayib la yoon tamit foofu la jaar ak nit ñam kon nit ñëpp kenn ku nekk a si yoon. waaye léegi nag suñu bàyyeekoo foofu noonu ñu ñëw suñu jamono tey nga xam ne problème bi yépp fii la nekk. wax ju bëri ji yëpp fii la nekk yonent yi ñoom bokkaloon tey ñu ngi noonu sàmm taa lay amoon dañuy dégg rek ñu topp def amuñ ci benn wérante yonent bi ñu sant nangal rek def nañ ko si waaye léegi nag soo ñëwee suusuñ tey nga wax balañ lay dégg. Mm-hmm. benn nga jëlee si xaste. mbaa nga jëlee si saaka mbaa nga jëlee si wax loo xam ne bu yàggee yoo di nga ànd ak ñoom. Mm-hmm. ndaxte nekkul loo xam ne lu yomb la waaye si asaas bi suñ demee si asaas bi islam si boppam. dafa am fu ñu jaarale. fan la bala ñuy ñëw si kaw àdduna fii ñaata weer lañ am si suñ biir yaay. kan mo nekkon suñu gannaaw di ñu top bala ñuy ñëw bala ñuy gën a àdduna gannaaw loolu noonu kan mo nekkon di ñu contrôle loolu ñun yépp su suñu borom la jaar ndax té mëna digënté bu nga juddu ba kéro ngay fër loolu ñaata la tank approximer des 3 years la moy ko tollu ba digënté ngay fër waaw I approximation two more two years and then two years two years two three years you know si la mooy la so yàlla mi ne loolu noonu yëpp maa nekkoon seen gannaaw di leen dimbale waaw léegi ñu jógee foofu noonu ana naka lañ war a ñu nag waajur si kaw àdduna bi fii moo dafa am benn nit yàlla bu baax ñu ko naan Luqmaan nga xam ne moom dafa def ci hikma yalla dafa def ci xam-xam yàlla dafa jël lu bari def ko si moom mu jël loolu noonu yëpp della war ko suñu borom sante ko ko ci lu mu ko defal waaye bu ko téye woon ci boppam correction dina wàcce ci kawam lan moo tax ba ma la joxee xam-xam ak xel bu nga ko mën a doxalee lan moo tax bu nga ko téye bu nga si jotee joteeluloo ko ci ko àdduna bi waxuloo ko ci sa doom lan la Luqmaan def dafa oo doomam bu góor toog waxtaan ak moom jaaru si turi doomam bi de hmm. mu ne ko eey eh, yow sama doom xam nga doom booy toog di waxtaan moom hmm. am na yenn stratégie yoo ko xam ne soo ko defee rek wala soo ko ko hmm. xol bi si boppam bi béeku na kontaan na si boppam ba loo wax rek dafa yàkkamti nga gën a dolli ba soo jox mun na bu ne ko eey eh, yow sama doom doom bi déglu ko mu ne ko laa tushrik billah inna shirka la zulmun alim foofu la ko staté mu ne ko bul lan bul bokkaalee yàlla ndaxte la bokkaale dafa rëy dafa diis ndaxte man nii sa papa gisoo may bokkaale yàlla kon yow sama doom bul ko bokkaale dégg mu continuer ci waxtaan bi muy waxam mu ne ko wala tamshi fil ardi marha booy dox ci kaw suuf doxal dox bu nga xam ne dox bu yiw la dox bu xam ne dox bu yem la mm-hmm. dox bu nga xam ne dox bu rafet la waaye dox bu nga xam ne doxi islam la comme yonent bi ñu daan doxee ndànk ndànk yonent bi daawul daw mm-hmm. daawul waaxu temp temp la mooy doxee te ku ko topp doo ko jot mm-hmm. waaye dafay dox dox bu nga xam ne dox bu yemin la ci kaw suuf mu ne ko del doxee noonu mu continué waat si waxtaan bi mu ne ko sooy wax bul dee ekkati si kaw bul dee ekkati sa baat si kaw dégg mu ne inna ankara aswaati la sawtu Muhammad ndaxte nag baat bu nga xam ne baat bu gën ñaaw la nga xam ne bu yuuxoo ñépp na aoudu billahi mina sheytaani rajim mooy baati lan mooy baati mbaaw mu ne kon nag sooy wax waxal ndànk soo demee ba sa wax yu yiw jeex noppi si diggante aaya yi foofu noonu. mu koy waxal ne su nekkee ne da am ñaari waajur. yu nga xam ne jullit lañ. waaw waaye nag nanguñu topp lu nga xam ne yàlla moo leen santaane. mu ne bu leen xas si loolu noonu. bu leen saaga si loolu noonu. te bu leen si mere waaye yow fexeel ba nga def lu baax la nga xam ne nit ñi bu ñu la suñu la si gisee rek dina ne si topp. mu gën a firi aaya bi tamit su nekkee ne gis nga ñu nga xam ne sa ñaari waajur mhm. nekkuñ jullit ñaari yëpp nekkuñ jullit wala kenn ki jullit la mhm. kenn ki nekkul jullit mhm. ah mu ne taxul nga xas leen taxul nga saaga leen bu leen wax lu bon bu leen wax lu nga xam ne ayib la bu leen toog di leen tuutal ndaxte waajur lañ waaw kay ak ñu mënta mel say waajur lañ yaa ngi gis mi ne fexeel def lu baax comme que yow doom la fexeel def lu baax te boo nga xam ne mbiri seytaanam la booy ñëw yow fexeel génn si seen biir ba mu set nga abal leen nii la toogoo woon ak doomam bi di ko waxtaan yaa ngi gis soo loolu noonu aaya boobu suñ ko seetee dina ñëw si suñ société bi nga xam ne xaw naa réer tuuti wala xaw nañuy réer tuuti. waaw te nekkul réer complètement. dafa am loo xam ne jos dañ koy manqué rek. waaye nit ku nekk xam nga lu suñu borom digal ak lu la aaye yëpp. yi ak lu si nekk xam nañ ko de. dégg mhm. soo suñu ba si foofu noonu. Mhm. si aaya mu koy waxee laa tushrik billahi inna shirka la zulmun mhm. yaakaar naa ne doomu aadama war mun a lan jël yàlla di ko dendale keneen. ndaxte yàlla moom dafa identifier boppam ba pare. si benn saar bu nga xam ne. aaya ñeenti lañ mooy suuratul ixlaas yàlla foofu la aaya identifié wan na soof allah qul huwa allahu ahad mm-hmm. allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad moom foofu la identifié boppam ba pare mm-hmm. kon nag war ñuy jël keneen ku nga xam ne ñu xamuñ fu mu cosaan mm-hmm. xamuñ fu mu jóge ñuy jël beneen yàlla di ko dendal ak moom nga xam ne du la jëriñ te du la lor du la xiifloo du la marloo lu dul yokku la coono soo naka ngay bàyyee ku nga xam ne mi ne saa yow ma ñaanee ma may la loo defal ma yokkal la ko ñuy bàyyi kooku noonu di dem di seeti leneen te mi ngi am. mi ngi am ñu ngi bari si société bi. nit ñi bàyyi ko xel waaye ko wax mi ngi am. mi ngi am kay. ku ko bàyyi xel mu nga xam ne moo nekk bàkkaar bu nga xam ne yàlla du ko jéggal. Mhm. yàlla mi ne man maa la defar jox la ngay lekk jox la ngay naan. Mhm. wàcce la si ko àdduna defaral la lépp nga may bàyyi fi nii di dem seeti seeti kenn. soo naqar boobu noonu. Mm-hmm. yàlla loolu noonu si boppam yow ma xiyam rek loolu la lay xaar gis nga foofu noonu ñu romb foofu noonu. Mm-hmm. ñu demaat ba tey ñun si biir aaya bi de. waaw. Hmm? Mm-hmm. sa ñaari waajur moo xam jullit lañ moo xam kii jullit la kii christian la. ak nu mu tamel daal exemple bu dee jullit la. yaay doom. te xam xamee wuñ ko lan lu du toppee waajuram si lu baax lu nga xam ne yàlla gërëm na ko ci lu nga xam ne suñu borom gërëm na ko loolu la ñu yàlla wax bu ñu di topp seen waajur di leen di topp li nga xam ne si anam bu nga xam ne anam bu nga xam ne mooy yoon waaye suñu leen toppee si anam bu nga xam ne suñu borom santaane wut ko ñun ñëpp danañu boole bindal ñu bàkkaar bu nga xam ne kenn xamut naka ndax tey yaay. ñaari waajur si boppam. Mhm. yàlla moo leen jox commande. waaw léegi si biir commande boobu noonu doom commande boobu la mooy topp. Mhm. léegi su nekkee na nag ñaari waajur yi seen commande yi baaxul. Mhm. doom bi du mun a jub. doom bi day réer. boobaa pour ñu yar doom bi. dina dina def ko trop. exemple tey nga am sa doom nga bàyyi ko depuis temps moo nekk xale te lislaam fu mu commencé. ñu ne la doom su demee ba am seen niis seven seven dañ ko digal muy julli su amee ten years na yar bi dal bu demee ba mat mag muy góor muy jigéen dañ ko bàyyi mu kàllaaf mu kàllaaf ñu bàyyi ko soo yow mooy seetaan sa doom si loolu noonu mm-hmm. léegi sa tane na sax

xale yi xale bu ko xale soo ko jàngalee si foofu nga xam ne foofu nar a jub la loolu mooy continuer waale mhm. bu yàggee xuraan dugg si dëndam bu yàggee moom dara du ko sax bu du xuraan kese leneen loo wax du mën a dugg si boppam lu du waxi yàlla ba yonent bi kese wax nit ñu baax léegi loolu nag suñ ko bàyyee si gannaaw mhm. pour nga jubal xale bi dina difficult torop difficult buñ ko seetaanee si anam bu nga xam ne doxut mhm. tey xale judd na tey naam màgg na xale xamagu dara moom mu teel a ñëw si xel bi moom loolu la mooy jàpp ne waaw bii mooy yoon. boo koy yar yar ko si yarin bu jub xale bu toogee si ay mag. danga ko naan ay mag fu ñu toog jógal nga dem si sa moromi xale nga dem toog foofu nii waaye boo ko bàyyee si biir mag. lu ma gi di wax mu dégg. waaw bés mi ngay ñëw dina toog weer leen fu ngeen xam ne fogeewu leen ko. xale nopp bee gën a gaaw mémoire card loo wax mun na ko jàpp ak loo ko mun dóor bu naree wax dina wax bàyyi foos te bu koy wax sax daf koy jàppee ne foye la fekk yàq na leen bu yàgg fekk wax boobu nekkatul waxi xale ñu seetaan xale so naan xay kii la dafa fone xale bi dafa xorom nii dafa xorom si xorom bu nga xam ne ñu ngi koy yàq si ron defaruñ ko dañ ko daan ay mag fuñ toogee dama ma toog si xale yi bu dugg si biir mag yi dootul ma ngi invite la seen biir ñuy wax lu nga xam ne dafa make sense boobu noonu xale pour mu toog loolu moom war na dégg ñu continuer ba tey xale bu war a start jàng nga koy dem dugal place bu nga xam ne du fa gaaw a xam boromam ak nu mun tamit du fa gaaw a xam boromam dina xam kan mooy yàlla waaye mm. xale ñu topp yàlla du ko xam te yalla neena xam leen ma bala ngeen maa jàmm du mëna dem tok ci biir classe bi rek ñu exam jot na rek nga commencé suñu la joxee looy ansa da ngay tang ba paré loolu mëna a ansa di wa non la yàlla tamit noonu da ngay dem jam da ngay dem jang kan moy yalla ba paré bo nga xam kan moy yalla lan la moy def nit ñi lu ñu digal lu ñu ay lu ñu téré lu ñu santane fu ñu sant ñu jaar ak ñan lañ wara tok ak ñuy ñëw ci ko suñ ko naka lañ koy régler mhm. yaakar na ne lool bo démé ba ko xam pour top yalla lu yomb la mo doon ci yow do ci am benn jàkkaarte mhm. way fek lool amul nak nga am sa doom jël jël yóbbu ko si place bu nga xam lu ci xamé yalla mhm. bo ba yow loraange rek lam lay asin moy waral ngay dem ba nek mag ba pare nga lijeenti xalé bu lay jangal tabati yàlla do ko tari ida ja bu nga xam ne moo gën a yomb xale yi dañ koy wéyandoo doo ko tari wala aadiyaati xale yëpp a ko mokkal léegi yow magum jëm lijjanti wuloo ko fa ngay doon xale xaar ba nga dem ba nekk mag hmm. ngay xelal ku lay jàngal boobu noonu amuloo taay boobu noonu hmm, hmm. jàng boobu sax day métti day métti di day métti si yow day métti si ku lay jàngal ndaxte boo ne ko ida mel la isaa kenn ngay régler làmmiñ bu ba dox <laughs> moo tax yar ak foundation bi yëpp. Mhm. di si taami xale la Mariam. gis nga lu baax si taami xale rek. Mhm. booy mag di ànd ak moom waaye bu lu bon si taami xale rek. Mhm. booy màgg muy commencé mu ñu foog ne mu ngi jëm kaw fekk mu ngi yàqu. moo tax foundation bu baaxutee tabax yi dañuy xarak daan. waaw nit tamit noonu. sa foundation bu baaxutee. jàngaluñ la sa diin <coughs> xamaluñ la kan mooy sa borom. du baax du baax. pour nañ ci bàyyi xel bu baax. <laughs> Ah, jërëjëf ah, oustaz si aw ah, wax bu am solo mu nekk topic boo xam ne dafa am solo torop te dafa nekk loo xam ne dang si war a di si jàngal léegoo léegi parce que yare na si islam dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop na ñu war a yare dafa war a ànd ak suñ diineem islam bi comme indi ko oustaz waxee yàlla daf ko jox yare bi teg ko si loxo yenent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi mu ñu waxal naka la war a yare comme ni mu ko waxee doxee nu yonente bi di doxee yonente bi doy dox sax doy dégg suuf bi di yëngatu waa ñun fii bu ñoo dox da ngay dégg suuf bi di kim kim kim suñu ron te loolu yëpp dafa nekk loo xam ne dañ ci war a bàyyi xel torop loolu ah, bokk ci yareeni islam te tamit ah, oustaz respect ah dañoo gis ne respecté mu ngi laaj si société bi doo société bi ñu ngi try léegi dangaa gis xale yi ñu ngi jàng alxuraan di jàng loo xam ne dafa day léego léego day daw sa yaram daal xale di jàng xadis bi di ko firi loolu yëpp dafa nekk loo xam ne dafa am solo trop te ñu kontaan si loolu bu baax a baax waa respect bi it is lacking in the society te respect wu tamit asi yari islam la bokka what's your take on to that soo seetee foofu noonu mm-hmm. yont bi loolu la ñuy jàngal mm-hmm. nit ki loo am xam-xam lu mu bari bari bari bari mm-hmm. soo joxul nit ñi respect boo amul respect sa lépp zéro la maa ngi jàng si benn téere sëñ Tuubaa moom fay bind ne nit ñi dañuy puugaru si am alal ak bari ñun ñuy pogaru si yar teggeen ak jang xalxal alquran xam nga sa alal bi mën na bari waaw fo taxaw ñu mm-hmm. top la ngir alal bi bo amu té respect kenn dula la faat borom xam-xam bi lu jang jang jang jang jang bu ebo mu mukkal ful téere bi yëpp ak téere yëpp yu nga xam borom xam-xam yëpp ko bind. Mhm. soo amul respect foo wax duñ la faale. boo doon fay nit ñi sax duñ la faale. Mhm. boo doon fay nit ñi laa war a duñ la faale. Mhm. ndaxte wax bu nekk ak mbir mu nekk si yoon lañ koy teg. moo tax Quraan mi ngi wax ni wa li kullin ja'alnaa shir'atan wa minhaaja lenn lu nekk ci sharia lañ ko teg ak yoon bu nga xam ne foofu lañuy ñuy jaar. respect si boppam am na manqué na ndaxte ñu nga war a jox cër ñu nga war a respect boo leen respect bu tee bul nangu bul xalaat sax nit ñi dañ laa jox cër mukk loolu moom fixe la kenn ku nekk loolu leb la loolu lañ lay fay waaw tey man su jógoon fii ni tey mhm. gis kilifa yaa ngi toog joxuma leen cër kenn ko nekk waaj joxuma ko sa wàccuwaay. foog nga ne man su ma demee ba nekk mag nii dañuy dañoo ma def la. xale bu ndaw ngay romb rek mu lay wax yoo xam ne non c'est ça nga teg nag di xalaat nag lan moo xew ak man lu ma mel yëpp. respect bi si boppam. dañ ko war a jàng depuis temps mooy bu ñuy doon xale. fan la soo gisee ay mag ñu toog nuyu leen foofu ngay commencé mm-hmm. gis nga xale buy commencé nuyu mag mm-hmm. ah dañ naan ah xale bii kat am na yar di mm-hmm. bu eboo sax nga réew sax waaye nu ba si biir sax waaye boo commencé nuyu rek ñu ne am nga am nga respect léegi nag si biir nuyu bu ngay nuyu noonu bu ñoom seen bopp ñoom ñoo lay fonk ñoom seen bopp ñoom ñoo lay bëgg ba lépp lu nga xam ne daf la war a lor tey ñoom si boppam dañ dafay gaaral téye la fa exemple tay tay dara mu wor la lo ma ñu gis la si nga bu nga xamne ne nekkul noonu dinañ la rus wa dinañ la oo yedd la ci bir bo non nak ah si ngay doxé bax ba fo ngir lan respect nga jox ma mhm. ci ciir ku ko jox nit ñu mhm. lo wa ko tuti wu lo ko wu lo mhm. di nga gis xalé bu ndaw ma ngi jox ko respect ba nga xamne da nga na est ce que ki li la ciir bu mu jox ak lu yàlla def si moom moo tax nit ñi fonk ko xale bu ndaw ay mag di ko ràmmal di ko sukkal dañ war a laaj xale boo noonu fu mu jaar mag boo xam ne tamit respect nañ la fi ah, yaa def lu ñu la respecté ngir lan danga koo liggéey danga koo wane waaye ku fi jaay ju koo ñàkk fayda nit ñi duñu la tam nit ñi ku am fulla la ñuy ku jox nit ñi cër sooy wax nga def ko ci teggin ak yar kenn ku nekk bu eboo sax ñu ngi waxat yaa leen mag ndaxte am na ñoo xam ne mhm. dañ jàng dañ xam ki nga suñuy suñuy ñoo xam suñuy waxtaanee ñoo xam ne ñoo leen mag mhm. dañ koy jaar ci yoon ak teggin suñuy waxtaanee ñoo xam ne ñoom ñoo leen mag sax mhm. ci yoon lañ koy jaar ba nga xam ne kenn ku nekk dina understand waaye bi ñu am foofu noonu tey man dinaa gis xale boo xam ne sax man maa ko mag mun koo jur ba su ma ko gisee. Mm-hmm. dama koo jox cër naan ko sama yumpaay naka def mu ree kontaan. Mm-hmm. mu ne xëpp sax moom saa yu ma gisee rek sama yumpaay la ma dee ooy. taxul ma ooyal la sama yumpaay de. Mm-hmm. cër la la bugg a jox respect la boobu mu jaar gi seen diggante. mu laay moo tax mu laay ooyee tur boobu noonu. wala mu fekk la sax ab góor muy toog sax eh bàyyi booy na nga def. léegi yow da ngay toog ngeen ne waaw man ñu may ooyee bàyyi booy lan laa def ba ñu may ooyee bàyyi bu yagge xalat boobu non ci boppam amna lu lay jural mm-hmm. mo nekk lan dama wara joxe jël dama wara respect ñu may waxal wa yow wu lo bo gisee sa mak do naka mak na nga def ci turam nga jaar mm-hmm. bo gisee da onkul ngeen ko lami na nga def wallahi bo sa papa ngeen ko Ousmane na nga def mm-hmm. te sa ngeen ko papa ngeen ko ngay ñu ngeen ko Ousmane bo gisee sa mam da ko oye mam nga jaar ci turam <laughs> loolu la la ñak respect <laughs> dañuy gis office yo xamna so fu duggé soo jaaree nit ki si borom turam rek mu gëdd la. Mhm. ku nga war a ooyee mista. Mhm. ku nga war a ooyee madame. waaw al karim. Mhm. ñu ko war a ooyee nga ñëw jaar si turam danaan la xanaa yow dama dof lu la jot. kilifa sax boo ko fekkee mu toog ni ngeen ko sëñ bi ziar nañ la. boo ko ziar nañ la mu xëcc sa loxo rek toog loola ndànk na la toogatuma wéy ñu toog waat. ay diggante morom ak morom sax. da nga gis koo xam ne ñoom ñaar ay morom lañ kenn ku nekk naan sëñ bi sëñ bi sëñ bi. Mhm. ngir lan respect bu war a jaar seen diggante. waaw léegi respect boobu su fa nekkutee rek kenn du tal kenn kenn du faale kenn. Mhm. dañu war a joxante cër. Mhm. moo xam si biti la si biir ak fu mu mënta doon. si biir kër yi mag a rakk yi ñu toppalante. mag bi si boppam. na am yermande ak respect ci digënté moma rakam rakam yi ya. rakam ñu am respect ci mag yi mhm. wa moy waral family bi neex ñepp ya. tok di waxtaan mag bu su ne rek ñepp lay daw top si su aay ñepp ñëpp lan topp si waaye mag bu bu amtee cër jaar si yoon pour rakay ñu top ko dina nekk def ko mhm. ngir la lu ñey wax ne yow ya waru ñu tege si yoon tegewuloo ci yoon kon ñu doñu mëna yar mhm. lool day am si biir family day am si digënté jagara jabar ku nga xam ne moo war a jaar si yoon war a jiitu jaar si yoon ba pare mu naan na teg nit ñi si yoon loolu du dox mm-hmm. dangay wax fii ba suba. kenn du la faale yow mu bind su ndox rek. Mm-hmm. saa yu ñëwee rek dafay roob. Mm-hmm. yar bi amul foofu noonu de waaye dañu war a respect yar suñu bopp ba nga xam ne. booy génn dafa am noo war a mel nekkul ne nu ñu neex na ni ñuy génn suñu kër ndax tey suñu borom bu mooy wax ak yonent mu ne yéen jigéenu yonent yi yéen jigéenu yonent bëggoon naa ngeen di muuru ngeen di kaalaw dégg ñuy bàyyi loxo yi ak tànk yi ak xarkanam waaye léegi loolu tubaab bi ñoo xool na jël suñ diine bi ba nga xam ne day jël yépp soppi ko mm-hmm. yàlla mu wax ne jël leen muuru leen ba ngeen rafet tubaab bi ñëw ngi ne déedéet suñu muuruwoo duñ mën a gis ñu nay si duñ mën a xam doxin bi naka la duñ mën a xam na gaa yi naka lañ toll rëy na mbaalu tuuti na mbaa silim léegi si ni ko mën a xamee moo nekk dañuy dem defar ay yére yu nga xam ne yére yu euh, mel woon jamono képp ku ko sol ku nekk foo génn booyu kontaan jigéen di naan ah yow sa sole bi rafet na di lii nees na di expo sole boo noonu la ñu islaam jàngal islam jangul ñu lool de islam da na ngeen sol ba mat sol bu yiw <laughs> sol bu yiw sol bu rafet <laughs> lu yiw day rafet <laughs> waxuma mal lu yiw day rafet de moy tay génnal fi nga sol kalaw wat bu yes pour nga sol sa dal yu rafet nga genn fi romb nga gis ko xamne elek dina la copy dina sol loolu dëkk bi yeb suñ doon def lool yaakar naan ay ñoom ju jumbax ak yu cangal yu gatt yi ñoom bo defee ñu ngay ci geej bi yëpp yaakaar naa ne am waye lan la topal do lu nga xamne xamuñu suñuy toppandoo toppandoo lu bax baax ndaxte mo am solo ndaxte lu bax rek lañu borom bi sante mm-hmm. loolu lañu yoonte bi tik tak loolu lañu mag mag yu baax yi tiktal sooy toppandoo toppandoo lu bax ndax mm-hmm. ndaxte yow doo dem ba ci marché bi mm-hmm. jënd ce pièce pour rafet ngeen nañ la ko defal rax loolu mo bokoy koy def ñawkat bi su boppam la ñuy njëkkaaree waaye yaay dem ci marché bi jënd sa yéré nga raas ko ma nga dog ko ak lu mun tamit ñu lii kat moo méngoo jamono moo dox te yàlla mi ne la muuru góor gi yàlla mi ne la takkal ba mu déggee ngeen ko déedéet tuwe bi digg bi daa xaw a dang xaaral ma juutal ko tuuti su ko defee mu mun a am suma bopp <laughs> est-ce nga dañuy def loo xam ne suñ su waxee kenn ku nekk gis sa bopp. Mhm. waaye fekk mooy yoon waaye gis nga nit ki nag fekk dëggam ngee taw. Mhm. du ko nangoo taaw. Mhm. daf koy bàyyi rek muy yàqu rek muy dem si suuf. deug bu ñew dang koy taw nga seet ko nga xam ni deug la nga tey ko ko sangu and ak mom dem waaye bo jappé ne deug xali safara ba tey daay doon xali safara rek gis nga ku nangu deug ko moy nangu tok ci yoon mooy nangu aw ci yoon du rir dara du ko jaxal ci ko aduna fu ko jombale mo raaj borom xam-xam yi nga xam ne ci nañ si lu yàlla wax fek bayu ci xel duñ mën a dem ndaxte yàlla moom moo wax ni mhm. man maa jël doomu aadama bindin ko bindin bu rafet bindin bu njëkk si bindin si mboolam loo xam ne bind naa ko mhm. doomu si génn mu jël ñu fonk ñu teral ñun nag di wàcc nag di def lu ñu neex suñu classe yoo xam ne xam ne fu ñuy aw wala qad karramnaa banii aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaat lii la suñu borom wax yàlla moo teral doomi aadama mm-hmm. si bépp teral yi est-ce que rab teral na ko mango yi teralul leen mm-hmm. bagage yi yéen yëpp teralul doomu aadama la teral mm-hmm. nga xam ne moom la yàlla jox xel ak xelaat ak mu koy defe moom la ko suñu borom bi defal moo xamal ñu lu si jaww ji ak lu si géej mu xamal ñu lépp loo xam ne si koo àdduna mm-hmm. su suñu maam Adama foofu la ko jaarale moom ak si suñu léegi nag képp ko xam ne nag teral nañ la nag teranga boobu bu ko yàq mm-hmm. luy olof di waxee teranga kenn du ko delloo ñu ne su teranga dañ koy delloo yàlla jël teranga ñu teral ñu ba mu neex mu mm-hmm. ne leen dëkk leen na ci jàmm ngeen nekk si jàmm xamal leen nit ñi dégg leen nit ñi teral ñu ñu ne déedéet tubaab bu ñëw mu ne kaay leen noonu am noonu am noonu ko day waxee ñi ne man your business and save your life boobu noonu comme ni mu ko waxee si starting bi noonu mm-hmm. boobu noonu fu mu nekkee ne moom moo ñu sonal mm-hmm. li kenn ku nekk si mbir bopp la mooy doxal mm-hmm. te yonent bi mu ne ndax duma leen waxal loo xam ne soo leen si jaaree doo leen riir ñu ko yonent bi waxal mel ko ittabi'u kitaaballahi wa sunnatu rasul jël leen ngeen jaar si yoonu si yoonu suñu borom. Mhm. ak sunna sunna bi mooy naka la tegtal yi nga xam ne suñu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa ko bàyyi ne loolu ñu ngi see jaar. Mhm. duñ waaye ñu ngi bugg a bàyyi yoon gannaaw ñu ngi bugg a bàyyi suñu diina bi mu nelaw nañ yar xale yi ndaxte xale moo gën a neex yar. ngir bu demee ba mu nekk ma mhm. xale suñ ko bàyyee suñu ko nekkee. si lu ko neex du sotti ndaxte nit ñi léegi business bi utam xaalis bi dëgg la baax na ndaxte kat ku ko amut doo nekk si taraanga doo doo doo nekk si jàmm infidèles yaa ngi xalaat. Mhm. waaye buñ di fàtt njaboot ci gannaaw. Mhm. saa yu nekk dañ war a xalaat njaboot yu si gannaaw ñu mel. waaw dégg bu guddi wàcc bu guddi jote. Mhm. nañ toog di waxtaan ak xale yi. waaw si ni nga xam ne noonu lay jamono di doxee. ndaxte xale am na noo xam ne soo ko seetaanee rek soo ko yar mbedd bi dina ko yar te mbedd bi bu ko xasee ba moom rek jeex na yow mënatu mënatuloo si moom da mm-hmm. ngay wax ne da ngay wax rek ne la mënatuloo maa a contrôle. wala nga joxe gannaaw mu dem defi lu ko neex. Mm-hmm. da nga gis ñoo xam ne da ngay wax ak ñoom ñu ne comme que suma papa suma a yar foofu la ñuy jaar. te ñu ko tiitaroo. dañ ko tiitaroo. Mm-hmm. kon ko suma yaay suma papa yarul ma yow doo ma mën a yar. spécial la suma euh, rakk yi xale yi jigéen euh, mm-hmm. kenn ku nekk warutoo dundee noonu mm-hmm. ndaxte boo mm-hmm. yàlla dina la dënk njaboot di nga bëgg ñu tege si yoon mu teg compétition bi dafa xaay si kenn ku nekk nu ñuy wanee la réewande yabante xamante kenn ku ko so wax da nga ma gën xamane da nga ma gën yabaat ndax da nga ma gën a ndax da nga da nga ma ëpp làmmiñ loolu noonu kenn ku nekk mën mhm. na ko waaye xam ne amul dañ ko jël pàkku feneen lu am ñëri moy baax tara am mandi refetal mhm. sa aduna neex yalla fay la teraanga boo ko defee rek suñu borom defal la teraanga mhm. way fek ya ngay jaay ne da nga mëna bari wax bari problème ñu na la tuddee may problème ajaratu seytaane tur bu nekk ñu jox la ko ah boo koy pogoro soo ñëw sax ñu ne yé saa ngi abal la mm-hmm. wala su ñëwee dina yëngal fi nii kenn ku nekk ne cel duñ la nga wax mm-hmm. loolu di jukko du yar mm-hmm. kenn ku nekk day ngay fexe yar sa birin bi yar sa xalaat yar sa suba su ma taami xale est ce que su ma baaxee su ma mel ci biir société nekk war na koo xalaat kenn ku nekk war na koo xalaat. Mm-hmm. waaye dafa am benn ustaas ku baax sant naa ko gërëm naa ko suñ ci àll yi fii la dëkk Aboubacar bu Njaay moo ma jiitu si koñ fu ñu nekk jàng naa jàng na waaye moo ma seen yow mm-hmm. nu mun a waxee noonu laa mun a waxee. mokkal na Qur'an bi xam na. jàng na English jàng na arab comme ni ma ko defee ñaar yëpp kenn ku nekk. yàlla def ñu bokkat di seen school bu nga xam ne ñun ñaar foofu lañ graduaté. ñun Muslim High la graduaté mm-hmm. moo tax foofu la graduaté moomu si nii woon. tombeel man maa ngi ñëw grade 10 moom mu grade 12 foofu laa ko fekk waaye kii. liggéey bu mu def dafa am solo trop ndaxte koñ bu mu ñëw fekke na koñ bi mi ngi mel mel ni boo xam ne dafa ñàng kenn xamut naka la nit ñi jikko mu fexe si biir loolu mm-hmm. mu commencé di waxtaanaa ak xale yi mm-hmm. xam nga mbir boo koy def bul ko commencé si magi de magi boo si dugalee wax ji day bari xëccal xale yi muy waxtaan ak xale guddi mu leen di jàng bëccëg su amee tam mu leen di jàngal di naxtaan ak xale ndaxte kon bu mu nekk. Mhm. ñu fa jàng xëy na ñu fa jàng bari nañ. Mhm. wala ñu fa waaye moom mu mel si koñ bi number one la. macha allah ndaxte man sant naa ko si loolu gërëm naa ko si loolu. Mhm. dafa fexe ba def la jël xale yi mobiliser leen. si mbiri diine si mbiri Qur'an. si mbiri hadis kese la xale yi di wax koo si gis solin bu yiw muy góor muy jigéen. keroog bañ sampee jumaa ji foofu noonu suñu boori koñ bi foofu noonu. moom lañ jël ñu jiite ñu ne ko moom mooy imaam. macha allah. yom booy. ñu fa nekk ñëpp mooy wax ñëpp topp si. ngir lan dafa am lu mel si société. Mhm. xam lu mu fa wane. respect yar ak teggin loolu la woon mag yi mu yóbbu ko si xale yi leen na dama am xam-xam wala maa leen mun wala maa leen nàngam te lu ma lay wax ni soo ko fekkee fi mooy doxee doxin bu yiiw terewul ba tey mi ngay jàng mi ngi MDI waaye MDI ñu bëri xam nañu fexe ba defar xale yi si koñ bi foofu noonu mm-hmm. man xale yi su ma la gis dama leen dee naw lu ñuy wax lu ñuy jàng lu mokkal si biir loolu loolu yëpp si la ko mag yi nawee ñu topp ko si dimaas bi waaw si dimanche bi. Mm-hmm. mu doon def benn programme foofu noonu suñu koñ bi di seet lu mel nii la doon waxtaan. ndax la ñuy fexee ba suñu société bi baax si biir loolu la ma ko benn message bi ma ko bindal rek seen kooku bu mu peree waxtaan dama jox dafa tiir sax mu ne ma kan moo fi dee ko man dama lay nuyu rek. Mm-hmm. mu ne ko dama la doon nuyu rek. ndaxte message bi ma ko bindal dafa kontaan mel ko nag ba nga ñëwee si koñ bi ñépp dañ laa soob bugg la jiital la suñ kanam mm-hmm. nga tette seen xale ŋàññu loo leen saagalu loo leen dégloo loo lu baax def loo gaay lu bon si yoonu islam nga leen tegal saa yu julli jotee dinañ la fa gis mm-hmm. lépp loo xam ne mënuloo ko dangay jël keneen nga teg ko fa te nekkul na moom kenn kese waaye dafa jël ay yeneen moromu booyam mu teg leen ñu nekk naa iba lu nekk rek ñooñu la mooy jiital te maanaam. mel na ko nag ñëpp nii lañ war a dundee nag si biir société bi. kenn ku nekk fa nga dëkk fexal lépp bu baax. Hmm. macha allah he's admirable. <laughs> kenn ku nekk those are the kind of people that uh, ñu ngi ko soxla si society bi. yaa ngi gis. kenn ku nekk fu nga dëkk. def fépp lépp nañ fexe lépp bu baax. ndaxte nit ñi suñu baaxee rek. benn benn yi suñu baaxee rek xëy na dina mun a coppil ñu des yëpp waaye su amee société boo xam ne. kenn du fa jàng Alxuraan. kenn du fa waare kenn du déglu lu baax. duñ def jotaayu diine. duñ toog ba di ko waxtaanee ndaxte yonent bi suñu borom kay mu ne mbooloo mu gën ci mbooloo mi. mu ne mbooloo mu nga xam ne dañuy toog di defar sa àdduna di defar sa diggante ak seen borom comme ni nga ko waxee woon si hadis bi mm-hmm. mu ne nit ñi nga xam ne dañuy toog ñi ngi jàng Quran di ko firiwaate ñoom i neen seen biir mm-hmm. mu ne yàlla dafay wàcce si ñoom sakina sakina moo nekk lan ab dal si ñoom mm-hmm. maanaam dara du leen jaaxle ba pare la mu ne dina leen tudd si mbooloo mu nga xam ne kenn xamul mbooloo mi naka la tudd saa yu nekk mu leen di buugaroo loolu la la suñu borom moo koy def fu mu toog rek yow dina la feeñal kon fu mu toog ñun tamit dañ di fexe waxtaan ak doom waxtaan ak njaboot ci si kër gi buñ bàyyi xale yi ñu la neexee ñun tamit ñun waajur yi parents yi buñ dox doxin boo xam ne suñ doome suñ si gisee buñ si jaaree pour ñu génne leen si dina nekk problème ndaxte yow loo nekk waajur bi ba pare jaaruloo si yoon ba pare nga bugg a jaarale si yoon yow nga am sa doom ba pare ji ñu ah, ko da sax ngeenaan sa doom na sol lu yiw pare yow sol loolu bu na la yaay lu ma sol la ngeen koy loolu sa yónne ko si xale nga pour nga wax ma loolu mm-hmm. est ce que loolu dina dox kon ñu ñu njëkk si njub ba pare mm-hmm. fexe topp ko doomi topp si gannaaw buñ ko defee jàmm am buñ ko defu na nga xëy na mu rum sarax si biir dëkk <laughs> kon na nañ fexe ñu jub ñu baax ñu ñun tamit ñuy wax ñu ñun ñëpp ci am mm-hmm. ndaxte ba tey ay xale lañ ba tey ñu ñuy yar ñu contrôle ñuy won yoon ndaxte nekkul mag mag yoo xam ne dañuy seetaan suñu ñu neex hatta mak sax dang koy waxtanal ci waxtan bu nga xamne mom mhm. dina ci gis bopom nga xamne ki lu may wax kat mhm. deug la daa la ñu tege ci yoon mhm. ndaxte mag mu saay say amna na mak mag mu saay saay booy waxtaanam bul ko won ne yow da nga say say jeul yoon bu yoon bu mu wara jaar nga sann ko ko asu yoon bu nga xamne mom su ko dege rek dina xam wa nangam te nangam ni la wara jaar boobaa mom dina ci gis bopom ndaxte waxtaan waxtan soy wax maanaam bul jël kàddu bi sànni ko ñëpp. waaw sa bopp yow muy wax. Mm-hmm. yow si nga bokkaale. Mm-hmm. ndaxte mënuloo see rëcc. waaw kon ñu gis ne. Mm-hmm. am na solo torop bu ko defee ñu jégalu bu baax a baax si kàddu. waaw tàng na torop te métti na waaye jubuñ si dara lu dul baax ak jub. ak defar rek. ndaxte àdduna moo demee noonu. fekk ñu ngay gis rek ñu ngay mën a wax ndaxte bëgguñ àdduna bi yàqu. kenn ku nekk jàmm lañ lay yéenal. ku yéene sa moroom jàmm rek di nga am jàmm waaye ku yéene sa morom safaan di nga am safaan kon nag balaa loolu nga xam ne suñu borom moo ñu dig la pour ñuy waxtaan pour ñuy defar nit ñi mhm. kon bu boobaa ñu tamit suñu rôle la ak suñu taxawaay mhm. pour ñu def ko bu baax a baax a baax ndaxte lii rek mooy àdduna lii rek mhm. mooy jàmm koo yéenal jàmm rek di nga am jàmm fu ñu jàmm fekk rek ñu ànd ak moom kon ne ñëpp nekk si jàmm suñ borom dimbale ñu aar ñu teg ñu ci yoon xool yu xaw a leen dem yàlla leeral leen ah, lu xaw a ñagas yàlla defar ko bu baax a baax a baax yàlla nangu julli nangu ñaan nangu lépp loo xam ne ñu ngi koy def wéeru koor bu xam ne mi ngay ñëw ni ñu ñaan suñu lépp loo xam ne jàmm nañ ko yàlla rek mm-hmm. nangu ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu oustaz jërëjëf Asisa kaddu yu am solo yooyu ah, di am kontaan kontaante ak mbégte si important plateforme boo xam ne te loolu lañ am tey tamit mooy yarandi si islam mu nekk loo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop nañ try by all means ñu develop the culture of islam in our system dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop amuñ fi dara loo xam a lu gën a important islam kon nag nañ try by all means lu ñoo def ñu jiital si suñ diine bi ma leen di wax ne jërëjëf for your time and your cooperation the whole team of EcoTV International from my cameraman uncle Usman Bay to uh, editor sister Janet ak Aisha suma boss bi mooy Sirifo mo de CEO uncle Usman Tunkara uh, di len wax yéen yëpp a jere jëf si sen time bi action cooperation bi thank you so much us of Eco TV International waxtaani islam jen Jeff ba next week inshallah rabbi waaye sponsor tamit bu len fàtte ñu len di xaar ba tay ñan call number si on the screen assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu